salaamaaleykum wa rahmatullah sopp yi nga xamante ni yéenay bàyyi xel seen télévision Tektal TV ñu dikk ak ci ci naafila bés bi guddig ñaar fukkeel gi ak ñett ci weeru koor sopp nañu ko ci julli ñeenti rakaa raka bu ci nekk mu jàng fatiha benn yoon jàng iza jaa anasrullahi juróomi yoon jàng qul huwallahu ahad juróomi yoon des na ko ca jéggal bàkkaaram yépp te des na digal ñaari malaayika ñuy far ay ñaawteefam di ko bindal ay yiw ba bis ba di dellusi si ci at ma ca tegu te bu faatoo ci diggante bi des na ko bindal tuyaabay ku dee ci jihaat soppe ku ci bëgg yeneen i leeral nga dem ci xurratu ayni bu Serigne Souhaïbou Mbacké page 149